membre FRAPP ICAT. jërëjëf comme ni ko sama naataango bi waxee sànq defe li ñu fi dajalee tey mooy point de presse boo xam ni dañ ko jagleel sunu ay naataango yoo xam ni dañ leen jàpp. ñu ngi leen di jàpp ci le 26 février bi nga xamante ni moom lañ génn ñu jàpp leen ci anam boo xamante ni nag jekkul jaaduwul. jàpp bi ñu ko amal mooy service sécurité kudd bi nga xamante ni moom moo nekk ci biir université Cheikh Anta Diop de Dakar service sécurité boobu nag ñu xamal ngir ñu saytu ñi nga xamante ni ñoo di étudiants yi waaye itam ñu respecté seen àq ak seen yelleef lu ñu nemmeeku nag ci jàpp bi nga xamante ni jàpp nañ ko suñu ay naataangoo mooy tëguñu ko ci yoon tëguñu ko aussi itam ci respecté ak ak yelleefu doomu aadama bi rawatina étudiant bi nga xamante ni bu dul dara mayuñu kenn koo xamante ni moo xam police la ak ku manti doon muy dugg ci biir espace universitaire di fi jàpp ab étudiant rawatina nag ñii nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkal waa kuddu ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan ay sàcc di dugg ci biir université bi di dugg suñu duus yi di sàcc luñu lu mën a nekk ci biir université bi ñii nga xamante ni ñoom ñooñu ay service sécurité lañ ñoom ñooy bàyyi ñi agressé étudiants yi à chaque fois ci biir université Cheikh Anta Diop de Dakar ñooñu ñoom ñoo ñëw jàpp suñu ay suñu ay naataangoo étudiant illégalement de manière arbitraire ñu japp leen ba paré dem jébbal leen ñi nga xamante ñoo di service bu euh commissariat bu point E. li ñu bëgg xamal nit ñi nag mooy am na ay presse yo xamante ñoo ngi bind ay presse en ligne ak ñeneen ak ñeneen ñuy bind ñi étudiants yooyu euh, ñu japp dañoo laalé ci ñi nga xamante ñom ñoo fi yoron ay armée blanche ci fan yi nga xamante mom lañu lañ ñi artu di yëgal askan mi ni leen suñu ay mbokki étudiant jang lañu xam liggéey lañu xam. ñoom ñoo nekk ay étudiants yoo xamante ni ay révolutionnaire lan bu senegal amee problème ñoom ñooy wàcc xeexal askan wi bu Sénégal amee problème ñoom ñooy wàcc sur le terrain moo xam communiqué de presse lay doon moo xam feneen fu ko maa defee étudiants yooyu ay jàmbaar lan waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor ay arme blanche suñu mbokk étudiants laalee wuñ ci te seen yoon nekku ci dugguñu ci te defuñu ci dara ñoom service kudd ak direction bu kudd xam nañ ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor ay arme ci biir université bi xam nañ ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi indi violence kon nañu dem ci ñoom wax ak ñoom directement de manière objective mais nag mënu jul suñu ay mbokki étudiants yi leen ci taqal wala di leen ci laalale ndaxte ñoom seen yoon nekku ci beneen bi ci des maa ngi woo képp koo xamante ne yaa ngi bokk ci amicale yi amicale yi nekk ci université Cheikh Anta Diop de Dakar ñoom ñëpp nañu xam ni suñu mbokk yi ñu jàpp nekkuñu ay étudiants tout simplement mais ay révolutionnaire lan waaye nag ñoom nañu xam ni nu ñu jàpp seen ay mbokki étudiants lan kon waruñoo am ngor wala waruñoo am ak ak gëm-gëm goo xamante ni dinañ dem ci classe yi ak ci amphi di

liberté boobu tey moom lañ war a jox étudiants liberté boobu tey mom lañ war a jox askanu Sénégal liberté boobu tey moom lañ war a jox képp kuy citoyen ñun nag ñu nangu injustice muy dox kon suñu ay mbokk étudiants nañ leen bàyyi amicale yi nañ ci wax parce que ñoom itam xeex bi di leen a interpellé beneen bi ci topp ñi artu Sénégal di artu opinion publique bi di artu direction bu kudd di artu képp kuy étudiant di artu képp koo xamante ni citoyen sénégalais nga nga jug taxaw ndaxte li nga xamante ni moo nekk ci réew mi jekkul jaaduwul te ko bàyyee réew dina àgg foo fa 23 juin 2011 yéen ñëpp xam ngeen ko li fi amoon nag bëgguñu mu amaat tey ci réew li ñu bëgg mooy suñu ay moromi étudiant suñu ay naataangoo suñu ay mbokk révolutionnaire suñu ay mbokk suñu ay mbokk ñu

añ reer wala xëdd bu fekkee am na ñu koy def bàyyi kenn mu koy def université Cheikh de Dakar ndax ñu ñu jàpp suñu ay nawle lañ ñu ñu jàpp ay jàmbaar lañ ñu ñu jàpp ay bañkat lañ kon duñu bàyyi benn ñu leen di jàpp su ma waxuma man qui pense que je parle de moi quand je parle de moi je parle de vous ce n'est pas vous seulement ce n'est pas nous seulement mais c'est nous tous c'est nous qui devons taxaw ñu xeex ak ak yelleef mu taxawaat ci Sénégal ñu bàyyi suñu ay naataango étudiant ndaxte nee naan jamono jii ñi nga war a taxaw ngir jàkkaarloo monsieur le juge li ñu bëgg nag ni ñu ko defee ci Guy mari Sagna ni ñu ko defee ci Guy mari Sagna bëgguñu ñu defee ko noonu suñu si suñu ay naataango yi nga xamante ni nee ay membre FRAPP lan nee nañ ay membre Pastef ikat lan nee ay membre FDS lan wala ay membre Ah, yaanaa maaran loolu lañ bëgg mu daal di arrêté ñu daal di koy dakkal ndaxte dañoo jug ngir xeex dëgg la bëgg mu samp ci réew mi ànd ñoo ngi ma Samba ànd ñoo ngi ma Demba dëgg la ñu àndal liberté la ñu àndal démocratie la ñu àndal te ku ko nar a salfaañe ñu salfaañe la yow ci sa bopp wasalaamaaleykum ñu ñu jàpp ñoo ngi toll ci euh, biñ leen di jàpp fukk ak benn lan woon jamono ji libéré nañ juróomi juróom benn ñoom ñoo des euh, war a jàkkaarloo monsieur le juge bisu tey wàllu essence ak arme boobu mooy li ma ci indi sànq di ko leeral rek mooy dama bëgg ñu xam ni essence ak arme boobu ñuy wax suñu ay mbokki étudiants yooyu laalee wuñ ci dara moo tax ñu artu opinion publique bi ngir. kenn bañ a dugal seen bopp wala kenn bañ leen a nasaxal bañ foog ni suñu mbokk étudiants yooyu ñoom ñoo yoroon essence boobu war a arme boobu ndaxte bu ngeen euh, fàttali ko baax a wala ngeen suivre information yi am na fan ay arme yoo xamante ni jëlee woon nañ ko ci chambre étudiants yi mu di xamal ni direction ñoom xam nañ nga xamante ni ñoom ñoo yor arme yi direction COUD xam na étudiants yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ndax violence kon bu ñu bëggee jàmm wala ñu bëgg a def li nga xamante ni mooy génne arme yooyu nañ dem directement ci ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo ko parce que xam nañ leen te xamante nañ ñoom seen biir lépp nag waxuwul ñoom xamante nañ te xamante nañ seen biir donc kon nan dem ci ñoon waaye bu ñu taxal ay membres yoo xamante ni parce que FRAPP UCAD lañ bokk wala Pastef UCAD lañ bokk wala FDS lañ lañ bokk wala Y'en a marre lañ bokk ñu bëgg leen taxal loolu lañ bëgg ni loolu du fi amee te duñ ko nangu. no jamono jii dama bëgg a wax ni ñun amuñu jot boobu parce que ñun suñu jot nekkul ni ñun dañu nekk ñoo xamante ni dañuy neexal wala dañuy corrompre wala dañuy jox dara pour ñu toog di défendre koo xamante ni salfaañe na réew mi yàq na réew mi defaru fi dara ñun loolu du suñu problème lii suñu problème mooy li ñuy xeex mooy l'injustice li ñuy xeex mooy réew mi tegu ci yoon li ñuy xeex mooy réew mi ñu teg ko ci na nga xamante ni moom lañ ko fekke woon ku ñu ko nar a yàqal ñu jëlee la fi waaye en tant koo xamante ni nag dañ lay neexal wala dañ lay corrompre ngay wër di wax kooku amuñu sa jot bon je suis Babacar je suis le secrétaire administratif de Passer UCAD porte-parole du jour. bon l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui c'est pour dénoncer une cabale une machination une injustice subie par par des camarades étudiants parce que le vendredi passé parce que le vendredi passé il euh, y a des camarades qui ont été injustement arrêtés au sein du campus social des camarades étudiants il y a même parmi eux certains qui étaient partis pour prendre leur petit déjeuner. Parce qu'ils ont été arrêtés tôt le matin, vers 7 h du matin. D'autres étaient partis pour, occuper, pour, faire leurs propres occupations. Donc comment on peut imaginer un étudiant qui est dans, au sein de son campus social et des nervis, des nervis, j'allais les appelle des nervis, avec les services du côte, qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas, qui n'ont pas eu, qui ne sont pas investis d'une autorité, d'une autorité de police judiciaire ose arrêter des étudiants au sein du campus social. Donc ça, c'est inimaginable, c'est des faits inqualifiables. Maintenant, vous n'êtes pas aussi sans savoir que il y a une loi qu'on appelle les Francis universitaires qui interdit euh, la police d'intervenir au sein du campus social sans l'autorisation de l'Assemblée de l'UCAP, ben de l'Assemblée de l'Université. Maintenant, ces nervis-là ont arrêté nos camarades étudiants au sein du campus et ils ont pris, ils ont, pris euh, nos, camarades et ils ont, ils, ont été, ils ont remis nos camarades au commissariat de Point E. Qu'est-ce qu'on reproche Bon, ce qu'on leur reproche actuellement, euh, c'est des détentions d'armes ou bien de, bouteilles d'essence. Alors que ces, étudiants-là, ils sont, sont des étudiants pacifiques. Ils ne, ils ne détiennent aucune arme blanche ils ne détiennent aucune bouteille d'essence. Parce que vous savez que la fois passée, il y le, chef du, service du Côte avait fait une vidéo pour montrer des armes, des armes appartenant à des étudiants. Maintenant, c'est cette vidéo-là qu'il peut, veut attribuer à nos camarades étudiants. C'est ça que nous dénonçons aujourd'hui. Bon, heureusement, on vient de nous signaler qu'il y a trois de nos camarades qui ont été libérés. Ça reste deux. Maintenant, si la situation perdure, on va utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour réclamer leur libération. Maintenant, les moyens que les, étudiants disposent pour réclamer une demande, vous le savez tous, c'est le front. On va ouvrir un front au niveau de l'avenue de On va ouvrir un front au niveau de la corniche ouest. On va même aller faire des journées sans ticket. Ça va communément appelé Ngente